bisimila dal leen ak jàmm mbokk internet yi Moustapha Cissé Lo mi ñu waxoon ni dañu ko convoqué ca gendarmerie mel na ni mujjul teg tànkam ca brigade ba xibaaru convocation Moustapha Cissé Lo ñu ngi koy waxtaanee fan yi ci réseaux sociaux yi ci biir réew mi ay xibaar yu ñu fësal di ci wax ni kile di député Moustapha Cissé Lo dañu ko woolu woon talaata ji yemoo ak ñaar fukki fan ak benn ci weeru sulet foofule ci brigade de recherche bu féetee ca avenue Faidherbe ba tey bu ñu sukkandikoo ci google xibaar ñu woo Moustapha Cissé Lo du lenn lu dul kàddu yi nga xamante ne jot na ko yëkkati teg ko ci dérob ay borom daraja ak i borom ndombal tànk ci nguuru Macky Sall ji boobule xibaar nag waa Seneweb ba ñoom ñoo ko fësaloon sukkandiku ci ay kàddu yu wér yu ñu taataanoon jëm ci mbir mi ginnaaw woolu ji ñu wax ne moom la ñu woolu Moustapha Cissé foofu la ca brigade de recherche ba li ñu nemmeeku nag mooy ci talaata ji mu waroon a wuyu Moustapha Cissé Lo tegu signalé Moustapha Cissé Lo li waral bu wuy jiwul boobule woote mooy ba fi mu toll nii kile di Moustapha Cissé Lo député la ca l'Assemblée nationale bu Sénégal looloo tax ba way takk der yi amuñu benn sañ-sañ ci di ko woolu ndax député bu ne dafa yore mbalaanu kiiraay gu tubaab di woowee immunité parlementaire boobule mbalaanu kiiraay moom moo ko may kaarange gu tax te ko loxo du yomb ndax yoon may na ko suñu ko wooloo mu bañ a dem wuyu fileek mi ngi sax ci wéy di doon député bu gouvernement bu Sénégal bu ñu sukkandikoo ci xibaar yi ñu mujjee jot naka am lu luy ñuul ci soow mi ba tax ñuy samp laaj ndax dëgg-dëgg waa brigade de recherche jot nañu convoqué ki nga xamante ne mooy Moustapha Cissé Lo li waral googulee jiixi jaaxa mooy ki nga xamante ne mooy avocat Moustapha Cissé Lo di maître Khassimou Touré ci waxtu woo xamante ne nii waa Seneweb doon nañ jokkoo ak moom ci téléphone dafa xam le ni moom mii di avocat ki nga xamante ne mooy Moustapha Cissé Lo benn yoon ab convocation bu ñu def ci moom looloo waral ba fi mu toll nii waa Tactic TV mënuñu dëggal boobule xibaar waaye nag ci fàttali ñu xamal leen ne kii di procureur de la république jot na saisir waa gendarmerie ngir ñu gaawtu amal taxawaay bu am solo ci mbir mi nga xamante ne daanaka wër na àdduna wërngal këpp te di ay kàddu yu ko ci député Moustapha Cissé Lo Tactic TV mi ngi leen di jaajëfal lu ci mën mënti am ci xibaar daan ci dellusiwaat ak yéen ngir yeneeni leeral